ñu leen ko doon waxee léegi ni fii nii ci euh, Touba comme euh, circulation bi posé na problème bu baax a baax ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, charretier yi aussi gis ngeen fii nii kenn mënatul dem kenn mënatul dik faaw ñu laaj len ñom par rapport ak ni nga xamante ne moom la ñuy transport bi fii nii ci Touba donc compliqué na euh, taw bi tamit euh, boo joué ci benn rôle bu xaw a am solo euh, ndax fii moom daanaka kenn mënatul dem kenn mënatul dikk mbir yi mu ngi kii bu baax asalaamaaleykum kilifa yi ñu ngi lay siyaar waaw waaw waaw naka naka ngeen di dundee taw bi dem ak circulation bi ni mu demee fii xat na doy na waar rek. waaw fi mu toll nii de saa waa ji yëf yi moom wax dëgg yàlla macha allah xat na doy na waar affaire bi dugg bi metti ndox mi wax dëgg yàlla bari na trop ci bépp côté nag oto yeeg sareet yeeg nit ñi wax dëgg ñëpp sonn nan waaw sareet yi ñoom daa mel ni dañ leen euh, tere ñu jaar ci kaw tali bi. waaw fii nii dañ leen ay ñu jaar si tali bi. te fi ñu doon jaar yëpp dafa taa wax dëgg yàlla fi mu toll nii sonn torop torop torop torop ah, léegi naka ngeen di fas yéene doxale ñu bëgg a dem ci jumaa jeeg ñu bëgg a wala da ngeen di mujj daal ak sareet yi rek wala da ngeen koy forcer xam fi ñuy yem fiñ fi ñu mën a yem rek négo yaaw moom daal fi nga xam ne tey jii fi la sareet yi dem ba mën a yem moom foofu la ñuy yem rek waññeew tey fan ngeen mën a yem ak fan ngeen mën ta yem ak fan ngeen mënul dugg ci dëkk bi fii boo jëmee Madiana moom daanaka bala nga si diggante boo jéggee pharmacie bi foofu la ñuy yem fi leen di wàccee clients yi ñu yëpp presque waaw biir dëkk ba moom itam daanaka tali laal tuñ ko boo jógee garage Dakar corniche bi ngay yem da ngay dem ba biir daanaka boo xaajalee ba tey doo nga wàccee clients yi dañuy sonn trop wax dëgg yàlla aussi clients yi ñoo sonn sa parce que yëpp bari ñu ci bari ñu ngi jàmbatu fee nii liñ leen di parce que am nga yenn gars yi moom mooy loolu ñu xaw ñee sàggan dañ leen di topp jël seen téléphones yi yi yëpp tamit da du jeex euh, gisoo ci ay yu mel ci duñ leen ci andil dawal non non wax dëgg ñun moom duñu suñu problème parce que gars yi waaw wax dëgg yàlla ñun duñu seen problème gaara li ëpp garage dagal sàcc yeeg lépp raxale moom gars yëpp ay mobilise wow ni dañuy xam nga moom yenn ñi nga xam ne dañuy woote na ci leen di yëkkati yeneen ak yeneen ci biir loolu nag du jàq dëgg yàlla ma euh, charrette bi ñaata nit moom wax dëgg léeg-léeg ba dix dañ koy yeb loolu xam nga tamit euh, day xaw a doy ba tey mbaa policiers yi bu ñu leen si jàppee duñ leen andil ay jafe-jafe. non non policiers yi moom du ñu jàpp parce que li ñuy yab moom contrôlé wuñ li ñuy yab ñoom daal dañ ñuy daggloo kayit bi la ñuy dagg 4000 saret bu ne. chaque jour ngeen dagg 4000 wala ci màggal gi rek. màggal gi yëpp 4000 la ñuy dagg waaw. léegi yow dagg nga ba pare. grand siyaar naa la Fall waaw man dagg naa. yeneen euh, xeetu jafe-jafe yan ngeen am ci euh, daawalu saret. waaw métti rek moom koy xanaa à part loolu moom ndox mu bari mi rek sekku ñàkk a bi aussi li ma li gën a naqari ni daal mooy ñàkk a yóbbu nit ñi fi ba bañ yegg fi ñu war a yegg daal waaw boo leen encaissé ba pare yóbbu woo leen fi ñu war a yegg coow li dana bari te aussi wax dëgg jaaduwul daal li ko waral tamit lépp mooy ndox mi macha allah kontaan nañ ci yow Aliou Diol ah. waaw ok Baye Fall jërëjëf. jërëjëf gis ngeen kon euh, li nga xamante ne moom la ñu yor euh, charrette yi wax daanaka fii moom euh, Aliou Faye boo xoolee fii kenn mënut a dem kenn mënut a dikk daa mel ni mbir yi amul tul avancement ci benn côté asalaamaaleykum jëwriñ ñu ngi lay charré. tur bi naka la man Abdoulaye ñu ngi laa tudd. Abdoulaye yaa ngi ci dawalum charrette bi waaye fii moom dafa mel ni mbir yi xaw na doy waar de. dem oh, torop torop instant bi moom son nañ torop bu baax a baax moom vraiment. Ah, non xam nga ñoom ci seen bopp. ñoom euh, borom sareet bu nekkoon borom sareet màggal bi du dox ni war a doxee mais tali duñ ko laal dara duñu laal ci laal dara dara duñ ko laal. mais mais yi boo xoolee tamit li tax ñi bëri gën ko taamu mooy ay yoonu contournement yi nga xamante ne di ngeen ko mën a am ndax tali bi moom daanaka même boo leen fi jaaroon ni du mën a donc euh, euh, ndox bi moom leen a gën a sonal daanaka. xam nga li gën a métti ci liggéey charrette yi mooy yow da ngay topp tali ba pare ba da ngay topp yoon ba ñëw ci tali bi léegi boo buggee jéggi dañ leen retourner ak client yi xam aussi neexul quoi. manam maanaam tali bi sax duma la nek nekk oh, tali bi sax duñ ko mëna a duñ ko mëna def quoi loolu mo metel liggéey bi xam nga señ bi mom bu fa ko nek señ bi kese kenn ñun magal rek mo ñu fi andi magal bu jeexee dañuy demaat fii ah, yow yow dakoo fi ni ci Touba magal da nga ñew exclusivement pour magal gi après da nga di delwat fan nga jógee man ma ngi dëkk bu ñaaxar ñaaxar nga di dawal sarati bi ñaaxar ba Touba wa ma la ko wax de wallahi non fa yi sonul eh. loolu wañu ko dara waaw dem mom taw taw bari mom waaw mais amul benn problème moom waaw a magal rek waaw bugg a magal rek wallaay bugg jal <laughs> jaajëf Aliou Faye kon euh, gis nga li charretier daal di wax ci li nga xamante ne moom mooy euh, difficulté yi nga xamante ne ñi ngi koy jàmmaloo fi mu toll nii nag euh, daanaka ñu bëri ñu ngi ñëw fii ci Touba ndax dañuy bëggaale tamit julle juma fii du coup looloo waral jékki-jékki rek affaire yi accéléré ndoo ñu bëri ñëw donc euh, ñu nuyu ñu jëriñ boobu jëriñ ñu ngi lay nuyu. tur bi naka la. Ibrahima Diop. Ibrahima yaa ngi ci ah, am na jafe-jafe de baax a baax a baax ñu ngi génn a génn a mënuñu génn daal. fii ñu ngi jëm garage. waaw. ay tali waaw. Ah, non instant bi kay damay. jegganti ni rek ba jeggi tali bi ba fexe jeggi tali bi. jafe-jafe euh, euh, waaw ah, ah, ah, euh, non manqué na bu baax instant bii de moom tey moom ni ma doxee fi ma jaar ni moom baaxagul daal fi ma jaar ni baaxagul daal. Uh-huh. waaw waaw ndax maa ngi bëgg a génn daal mënu gu ma génn daal waaw. <laughs> non dara duggagul gara maa ngi jógee fii ba Fass Mame Baba waaw. pour màggal gi waaw. ah oui. voilà fas baa ngay màpp de ah xam nga ne lii doy na waar